bokk yi daleen ak jàmm yàlla def na jàmm ginnaaw njàq rek ci si bopp Sénégal yu bëri bi ñu déggee ni ki démb ne am na benn ndaw bu bëggoon a fàq si diwaanu waxaan fa jàngoro coronavirus da balle wut ci fii si réewum Sénégal moom moomee nag bu ñu sukkandikoo si Sénégal bi le témoin doomu chinois la mu ngay wuyoo si turu Wang nga bëggoon dugg si Turkish Airlines wut si fii si réewum Sénégal waaye waa compagnie boobee ñoo si def ak mat daal di yëgal xibaar bi réewum Sénégal si la ñu ay pexeem ba bomb boobu bëggoon jógee Chine exclu si réewum Sénégal bu ñu témoin témoin ki nga xam ne nag moo di Marie Xemes Ndiaye mi nga xam te ne bii moo directrice de la santé mu ngi naan ñu ngi ubbi suñuy gët xool bu baax a baax di sàmm kaaraange askan wi lu ñu ubbi rek doyul si lu jëm nag si jële doomi Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk Wuhan indi leen fi si réewum Sénégal dafay mel nag waxtaankat yi si wàllum diine sax ñoom ñëpp waroon nañu si ba léegi wax ju takku amagu ci Cheikh Omar Anne ñi nga xam ne noonu la yore woon kër moom Cheikh Omar Anne contre attaque na bu ñu sukkandikoo seen kayit di enquête ginnaaw bi nga xamante ni bi ngàdd na si nga xamante bi moo di moo ab plainte li mu leen jox moo di ab citation directe boo xamante ni bi li nga xam ne moom si sàkku tamit ñun dàmpaay ko lu toll si fukki milliards suñuy koppar nga xam ne bind na ko mu di scandale au cœur de la république le dossier de Codou mu daat koy na fa beneen ab livre di

yi nekkoon si ay jafe-jafe moom it dafay mel ni jafe-jafe yooyu nga xam ne si la nekkoon génn ci buñ sukkandikoo si L'As Quotidien ndaxte coow dëgg nag moo am si tabb gi nga xam ne tabb nañ ko ki nga xam ne moo di Mbaye Dione mi nga xam te ni bi moom la ñu def directeur général bi bi ñaxtu yi kay day wër di takkarnaase buñ sukkandikoo si waa Grand Place bi nga xam te ni bi mu ngi naan syndicat jàngalkat yi boulangerie ba yi ñëpp ngi ñaxtu mel ni ci loo xam te ni bi day baax fépp lay wañaxee waa G7 moom dëgmali seen ñetteelu plan d'action bëgg yi taggatémbel composition yi nga xam te ni bi mooy am si biir réew moom jamono ji seen nekk wu gën a ñoŋ lay sàkku waaye tamit ñu fay leen seeni i transporteurs yi moom banque seen yoxo rawatina cinquante 58 bi nga xamante ni bii daanaka dawatul ñu daw wutali làmb ja ak Mbaye Gueye Tigre de mi nga xamante ni bii mu ngay xëy di yëkkati ay kàddu nag ginnaaw bi nga xam ne jàpp na ne jafe-jafe dëgg nag la ñu seetlu si làmb ji ginnaaw boo xamante ni bii ay jàppante ak ay xeex mu ngi fay bëri lool mu jàpp ne lii nag baaxul si ëllëgu làmb ki nga xamante ni bii fekk nañu ay kàddoom si biir yenn kaay bi suñu làmb moo di Zallo mi xam ne mooy àddu nag si bi war a dox diggante Modou Lo ak ki nga xam ne moo di Ama Baldé naan combat boobu nag amaa Baldé bu mu sóobu ab xeex dëgg nag ndaxte moom gardam ci boppam baaxul mu jàpp ne combat Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 lu mënta ñàkk la jamono ji askan wi ñoo ko soxla jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah